li ci gën a fës si daate ci flash bu 19 bi euh, di bande annonce bu série euh, infidèle saison 3 euh, dakkal nañ ko communiqué bu CNRA di dogal boo xam ne conseil national de régulation de l'audiovisuel moom moo ko jël ngir dakkal bande annonce bu saison boobu tax nag ñu jox kàddu ki nga xam ne moom mooy ki defoon plainte ca CNRA muy vice président bu ONG Jamra di maam Matar yi mu koy rafetlu bu baax a baax dakkal googu waaye di sàkku ci nguur gi mu taxawaayam ngir dugal loxoom ci secteur bu audiovisuel ngir ñu mun koo raxas bu baax a baax ñu teewlu jokkoom ak Ibrahima Diame. xam nga infidèle da doon làmbaatu rek mooy bande annonce boobu ñu jàlle woon ci réseaux sociaux yi waaye dafa mujj xëpp seen kaw ndax ñëpp a mer ndax ñaawteef ak xotti war ma jigéen ak toroxal jigéen bi ci am ba ñuy saisir CNRA suñu plainte bande annonce boobu lañ ci toxtal CNRA jox nañu dëgg interdire nañu non seulement band annonce waaye l'ensemble des épisodes de la saison trois tere nañ ko mu daw ci mbooleemu chaîne bu yeewoo fi ci Sénégal kon Jamra ngi sargal Babacar Diagne ak CNRA ndax wane nañu loolu tubaab di wax patriotisme culturel pour ñu mën a sàmm suñuy valeur sàmm xar baax yi nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñu bay waaye nag en même temps état war na jël responsabilité pour mettre de l'ordre ci secteur bi nga xam ne ku jóg rek ne producteur de série la homme d'affaires yeeg businessman yi nga xam ne wutum xaalis rek moo leen itteel sàmm suñuy valeur seen ngaña newu ci aar euh, santé mentale ak moralu xale yi seen yoon newu ci ñooñu foog état bi yemale leen te ñu bàyyi métier bi ak ñi nga xam ne seen métier la li Babacar Diagne def nag mosu fi am di Sénégal nekk Sénégal ba léegi xeex nañ fi ak canal ñu interdire confession érotique après deux ou trois épisodes yeneen télé yi noonu waaye koo xam ne yow dawalagoo sax ñu ne la bu fi dawee alors kon nag euh, nañu def preuve de vigilance te ñu nangu ne dëkk bi dëkk yoon la te dafa nekk pénc moo xam ne ñun ñëpp ko bokk ku ci nekk am nga ci cër waaye boo jëlee sa cër ba mu jeex nga bokk ak ñëw di kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax maam Matar Gueye di vice président bu ONG Jamra dem ca njaareem ak coow lu fa am ASP yi ñoom ñoo ko waral li ñuy ñaawlu mooy seen benn seen ñooñ boo xam ne procureur bu tribunal de grande instance bu Diourbel da ko placé su mandat de dépôt gannaaw bi nga xamee ne dañoo njort ne moom ASP boobu dafa laale ci benn cambriolage bi amoon ca tribunal bu njaareem fédération nationale des boulangers du Sénégal ak regroupement des boulangers du Sénégal doon waajal grève ñaari fan ci samedi bi ak dimanche bi waaye mujj nañ ko teg ci suuf dootul am grève boobu gannaaw ay waxtaan yoo xam ne seq nañ ko tey ci suba foofee ca Géejawaay troisième vague bu coronavirus moom lañuy ñuy euh, jeexalee ak bilan bi nga xamee ne kon. bu tey bi fukki nit ak benn ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan euh, am ci juróom fukki kaa ak juróom-ñaar yoo xam ne jamono ji ñu ngi ci di euh, centre de traitement yi ñu leen di jàppale ngir ñu yi am na tamit cas yees yi juróom-ñetti téeméer la ak juróom-ñett fukk ak ñeent nekk nag ci taux boo xam ne bu jéggi dayoo la ndax ci cas yooyu ñoo ngi ko jëlee ci 3164 tests yoo xam ne amal nañ ko juróom-ñaari waxtu mbokk yi dem na ba tegal tegal ñetti simili fii la ñuy yem ak yéen ci flash bi ma amoon mbégte ànd ak yéen